incendie bi amoon fële ca Tiwaawan ci hôpital Maam Abdou Aziz baax te lu toll si 17 bébé daal di si muccoon ñàkk seen bakkan daal di nay indi polémique ci langue politique gi. ci nous communiqué la jeunesse bi di euh, coalition Benno Bokk yakar te pour ville sainte di di euh, ak am di koy ci leaderu bi euh, di Ousmane Sonko ñom nak des kii di maire bi respecté wul li nga population bu Sénégal Nous bi en plein deuil national le président de la république daal di koy déclaré woon mu toll ci trois jours moom leaderu Pastef boobu nag euh, dakkalul benn yoon concert bi nga xamante ni nii rappeur bii di Nit Dof doon na ko amal foofu sa Ziguinchor ñoom nag ñu daal cay toftal rek ne Ousmane Sonko li mu def irresponsabilité magatu ko ba looloo tax sax ñu daal di koy déclaré tuddee ko li nga xamante ni mooy persona non grata euh, foofu ca département bu Tivaouane ñoom jeunesse boobu nag ñu ngay daal di boycotté daal di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni ni leaderu Pastef bi nekk itam maire bu Ziguinchor daal di na koy amaloon ci li nga xamante ni ni euh, moo nekkoon ci jouru euh, day national bi ñoom nag la ñuy gën a ñaawlu mooy ni Ousmane Sonko dafa daal di yëkkati lu toll ci vingt millions francs CFA daal di koy jox ki nga xamante ni nii mooy nit dof ñoom tamit ñu ngay wax ba tey ci seen communiqué ne xaalis boobu nga xamante ni nii Ousmane Sonko yëkkati na ko jox ko rappeur bi mënoon na ko rek utiliser ngir daal di koy defaraate li nga xamante ni mooy rue yooyu mu daal di euh, baptiser woon euh, ci Ziguinchor temps bi nga xamante ni ñu ngi ko doon doogaa falmeer ba tey ñoom ñuy xam leen ni acte yi nga xamante ni Ousmane Sonko daal dina koy wane ci li nga xamante ni mooy diggante day national bi wane rek wane na rek ni moom Ousmane Sonko mën naa génnee xelam ci li nga xamante ni nii mooy fauteuil présidentiel bi.